soxal sunu réew soxal sunu gox muy lan une déclaration politique sànq pour euh, Saloum résumé na lenn ci suñu jaar-jaar tudd ci ñaari aspect rek mooy élection législative yi passé nga xam ne taxawoon nañ pour nekk député xadara bi taxaw pour nekk député Kaolack pour yenn manque-manquement yi nga xam ne daan na am fii ci Kaolack ñu am seen doom joo xam ne ëllëg bu taxawee assemblée nationale dana ko mën a défendre euh, yàlla def ñu déggoo ak euh, benn chef de parti bu ñuy wax Demba Diop Sy di CPJE ñu waxtaan mu yóbbu ñu cinquième personne ci listam pour ñu mën a défendre candidature am boobu c'était la première fois ici à Kaolack CPJE di fi dugg ñu implanté ko fi ba Kaolack yëpp xam ko fi li mu wax dëgg la parce que ci commune bi rek am nañ ci lu ma 3000 et quelques voix départemental bi ñëw yokk ko.

moom mu contacté ma waxtaan ak man wax ma ni mu bëgg a amee Sénégal mu dëppoo ak man ni ma yaakaaree ni nii ba ko amee dana baax ñu jox ko loxo ànd ak moom di liggéey malheureusement candidature am jàllut mais lim ñu utloo woon muy ay ay signature parrainage am nañ ci lu ma dix mille quelque te loolu yëpp liggéey moo ñu ko may so bi mu diagnostiqué nag boobu ba léegi bi élection yi jeexee ba léegi ñu ngi toog mais tooguñu rek Euh, nekk observateur parce que liñ bëgg mooy réew mi ni muy doxee ñu xam ko parce que nit su fekkee ne da nga am njaboot mu yaatu walla sa population am luñ ko war a jox vraiment su la yàlla maye yenn capacité politique yi da nga war a sóobu ci làng gi boo sóoboo ci làng gi ndax politique nit ñi ñoo ko firee noo xam ne nekkee woo ko mais du dara lu aar boo xam ne da nga war a gérer sa cité ba tax na boobu ba léegi ñu ngi def stand by tok di xaar di déglu di diagnostiquer di dugg ci terrain bi en même temps di wax ak suñuy militants di wax ak ñi nga xam ne duñ militants euh, gis ne wéet nañ ci terrain bi lool mais fu dem danañ fa fekk ay œuvre ak ay réalisation yoo xam ne euh, biñ toogaatee jàngat am ñu présenté benn nit ku baax ku nekk Kaolack koo xam ne euh, itteem daf ko bàyyi ngir lan ngir dimbale waa Kaolack muy Mamadou Ndiaye Rahma bu buñ ko rencontré ay yooni yooni yooni yoon du benn yoon du ñaari yoon waxtaan ak moom dugg ci terrain bi gis lim liggéey dugg ci terrain bi rencontré li nga xam ne moom la moom la def pourquoi pa su fekkee ñun bëgg nañ lu baax moom mu bëgg lu baax di Kaolack lu ko développé ak Kaolack lu ko changé bu ñu tàllalee loxo mën nañ ko uy ci contexte boobu lañ ko uy gis nañ ko nag mu nekk nit koo xam ne nii nit kuy œuvre la ci walu social vraiment loolu kenn mënu ko naatable li gën a jafe ci politicien yàlla daf ko ko may mooy ngay dimbali nit ba pare mu àgg fa mu jëm loolu yàlla may na ko ko ndax boo duggee ci terrain bi doo ñun ñi nga xam ne dañ ko daan opposé wala dañ daan xëccoo ak moom soo duggee benn kër ñaari kër da nga fa fekk liggéeyam kooku nag su fekkee toog ngeen am ngeen chance ngeen toog yéen ñaar échanger wante ba nga xam ne yow gis nga moom ambition yi am pour Kaolack mu dëppoog say yos ñun Kaolack rek moo ñu intéressé région bi rek moo ñu intéressé Saalum rek moo ñu intéressé Medina bàyyi rek moo ñu intéressé loolu bi mu amee bi mu ñu tàllalee loxo rek ñu jàngataat suñ bopp pour pourquoi pas duñ ko rejoindre loxo jàppale ko ngir waa kaw la génn ci situation bii ñu nekkee euh, leader la boo xam ne tey moo gën a jege askan wi ci mboolem leader yi politique yi nekk Kaolack loolu duwul man maa ko wax mais ay faits ñoo ko déterminé donc kooku lañ fas yéene jàppale bés ni ki tey ànd ak moom

tey am na ay yu bëri yoo xam ne yëkkati na ko mu jëm ci loo xam ne dafay dimbale askanam dafay dimbale réewam pourquoi pas suñu tàllalee loxo duñ ko jàppale. te buñ défendre Medina Baye Niass ñun ñoo mën a xam li Medina yelloo duwul keneen moo fay ñëw mën nañu wax ne mboot njaay mooy politicien bi gën a nekk xariti waa Medina actuellement fii ci ci ci langue politique yëpp boo jëlee candidat yi fi jaar ak leader politique yi fi nekk yëpp moo gën a jege Medina beneen la amul potentiel politique bi mu laaj lu mu métti métti métti dañuy nekk ci terrain bi opposé ko mais gis nañ ne charisme bi politique laaj ak euh, moyen bi mu laaj ak bëgg Kaolack bi mu laaj ak bëgg Médina bi mu laaj lépp mi ngi ci moom loolu moo gën a mën loolu moo ñu gën a mën a poussé pourquoi pas ay nit buñ bokkee bëgg-bëgg rek war a mën a ànd.